Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues des finances, chers collègues du travail et des relations avec les assemblées. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de plaisir rimé d'un honneur incommensurable que je me retrouve encore devant les illustres députés du Sénégal. Monsieur le Président, je le rappelle très souvent, je fais partie de cette législature. Je fais partie de cette législature parce que les populations du Ndoukoumane m'avaient accordé leur confiance avec l'honorable député Amin Monsieur le Président, Le 12 septembre 2022, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. C'est avec plaisir que je constate, c'est avec plaisir aujourd'hui que je constate que notre Assemblée nationale est digne de notre pays, que notre Assemblée nationale est à la hauteur, malgré nos diversités, malgré nos divergences, que nous pouvons nous rassembler autour de la République du Sénégal. Cette République qui est la nôtre, c'est pourquoi je voudrais féliciter et Monsieur le Président, je le tire du fond du cœur, tous les députés issus de la majorité, comme, celles, comme ceux issus de l'opposition. Nous sommes tous des produits de cette démocratie. Monsieur le Président, si je remercie, si je remercie tous ces députés, je dois commencer par vous. Parce que dans les moments les plus difficiles, vous avez tenu à tenir de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui fait notre honneur. Vous avez admirablement poursuivi ou perpétué la tradition de grands présidents de l'Assemblée nationale, dont le dernier est Moustapha Niass. Monsieur le Président, nous avons aussi bénéficié de la collaboration franche de l'ensemble des députés durant toutes les années au cours duquel le président Macky Sall nous a fait confiance. Et de ce président, je veux parler du président Macky Sall. Toutes les félicitations, toutes les félicitations qui nous ont adressées sont directement adressées à lui. Parce que de lui, nous tirons notre légitimité. De lui aussi, nous tirons notre légalité. Mais de lui aussi, nous tirons la puissance de nos réalisations dans tous les secteurs que nous sommes confiés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Les critiques aussi, je les accepte parce que le président Lamine Cham l'a dit tantôt, nous sommes des produits. Parfois, certains pensent qu'ils que nous l'opposition. Nous nous sommes pour faire de ce pays ce qu'il est en matière de démocratie. Et à l'âge de 17 ans le champ politique. Et la phrase que l'opposition est un rouage essentiel dans la démocratie, Et je crois que le meilleur des témoins, un des meilleurs témoins, c'est Sambassi, lui aussi ki a été un acteur dans cette lutte. moo tax man su ma ñëwee ci assemblée nationale du ma mës a jaaxle parce que nit mënu fi wax lu may jommal parce que dama jàpp ni man doomu démocratie la man jëlewuma nguur ci maam du ma sëtu sëriñ benn sëriñ du ma sëtu benn sëriñ bu mag kon li ma am yépp démocratie ak république ñoo ma ko may démocratie ak république boobu mu ngi lalu ci débat contradictoire wax sa xalaat bàyyi keneen tamit wax xalaatam ku ci nekk nag xam ni ñun ñëpp askan wi moo tax ñu jóg parce que booy seet luy seetlu l'essentiel après mooy li ñuy jëf te li ñuy jëf tey ñu bari ñu ci bari félicité ma te suñ ma félicité ñi nekk sama ginnaaw ñoo tax parce que ñoom ñoo liggéey liggéey parce que man ministre nekkuma fépp nekkuma fépp lu ma mën mooy superviser ak contrôler bu fekkee ni amoo ak collaborateur yu gëm yàlla gëm seen mission xam ni le ciment de la collaboration c'est d'abord la loyauté et la loyauté c'est l'assumation de responsabilités qui sont qui sont confiées loolu duñ ci mën a dox moo tax ma leen di gërëm di leen sant parce que félicitations yi ngeen ñu yónnee yëpp pour ñoom collaborateurs yi ñoo xam ne ñooy liggéey ci terrain bi guddeeg bëccëg ma profité ci ci tribune bi monsieur le président soo ma ko mayee ma rendre hommage ginnaaw président de la république ginnaaw conseil de ministres yëpp tey député yëpp tamit nangu ko mooy xale yu nekk ci mbedd mi ci naaj bi ci guddi gi à deux heures du matin trois heures du matin te kenn du ci jooy ñaxtu kenn du ci jooy ñaxtu ñëpp di bëgg li nga xam ne mooy setal réew mi te nag histoire wu cet ci réew mi dafa am histoire dafa am ay xuloo xeex yu fi jaar ku ci fàttaliku ay Kadakar ku ci fàttaliku yu bëree bari bari bëgguma ci ñëwaat Macky Sall moo ko faj moo ko faj ci Sénégal zéro déchet xam nga man meer la ñu bëri dañuy xëccoo compétence yi ah état bi def ñoo transféré ay compétence waaye transféré ñu ay moyens waaye ci mbalit mi gars yi xëccoo wuñ ko de sëñ Bara ci mbalit mi ci mbalit mi gars yi xëccoo wuñ ko de normalement maire yi dañoo waroon wax ni lii du état lii du état ñun ñoo ko war a ñoo ko war a jël mais état président Macky Sall daf ñu ne Sonaged bëgg naa koo fekk bépp ci réew mi UCG lañ nekkoon mu nekkoon collectivité territoriale président moo wax ni nañ ko transformer en société national parce que Moustapha Ba mën na seede li koppar liñ ci dugal ci concessionnaire yi Diop si wax na ko Ali Mané wax na ko sànq ci état bi effort yi mu ciy def tous les jours pour que ñu mën ko accomplir mais effort yooyu mënut a mënut a wéy président mu ni ko transformé en société nationale mu mën a lever ay fonds mu mën a élever ay fonds boppam mën a finance te lu ñu jàpp ni lii état day Moustapha di accompagner waa Sonaged dafa am diir bu muy yem après diir boobu bu ñu àggee seen vitesse de croisière Sonaged dana mën a jël boppam non seulement recruter li muy recruter mais mën a jël mbal mi def ko comme ni ko tubaab yi doxee def ko de l'ordure et ci loolu lañ nekk moo tax su ma déggee ñuy wax Promoged Sonaged damay jaaxle projet bu muy juddu ci UCG la juddoo projet foofu lañ ko xalaatee nase ko dox ko waxtaan ko ak partenaire technique et financier mais partenaire technique et financier liñ mën a am mooy indi suñu alal indi ñu alal mais ñoom duñu jël suñu souveraineté suñu souveraineté rek ñoo ko moom état du Sénégal Macky Sall mooy président de la République mooy joxe orientation mooy joxe direction ñu ne Promojet na créer ay infrastructure parce que kopparu réew mi rek doyul il faut que partenaires techniques et financiers dugg ci moo moo tax banque mondiale dugg ci BI dugg ci AFD dugg ci ñëpp dugg ci pour ñu mën a ñaari mbir lañ leen sant ci li nga xam ni kenn mënul na table ci ñaari mbir mooy ñu créer infrastructure infrastructure yooyu bu ñu ko créer ñu jox ko Sonaged benn bu nga xam ni moo ci ëpp essentiel mooy mbëbës mbëbës nag xam nga nit ñi li ñuy wax mooy troisième décharge du monde régime yëpp traversé nañ ko kenn uti uti solution président Macky Sall indi solution bu ñuy wax solution structurelle may wax député Bara Gaye bul yàkkamti bul yàkkamti da nga gis parce que mbir mi tamit état dafa jaar yoon da ngay def ay appel d'offre am ay procédure procédure yooyu te 2000 récupérateurs yëpp président dafa ne bu projet bi commencé bay commencé dugg benn récupérateur bu leen ko bàyyi ci mbedd mais on est en amont du projet mënuñu léegi-léegi nga ne waa quarante compté boo gis lim boo gis balaa mu àgg 2000 ci 1 lay commencé ci 20 mu 40 léegi ñu ngi ci 40 projet bi commencé gul sax ci lu nga xam ni ci ci ci génn des terres nga commencé di ma laaj demi récupérateur yi xam nga ni xam nga ni bu fekkee ni defuloo politique politique rek mën na xam école bi nga jaar foofu laa jaar <laughs> bu fekkee ni bu fekkee ni bu fekkee ni rek dul politique politicien rek war a gërëm yàlla gërëm gouvernement bi gërëm président Macky Sall ci vision ci mbir ba wës troisième décharge du monde et c'est la première fois qu'on prend des aussi hardies pour ma bëgg rek ñun ñëpp ci loolu mën nañu am consensus honorable député mun nañ ci am consensus surtout mairie yu nekk ci département de Kër Massar ñun ñëpp ñu am ci consensus songandoo mbir mi bu ñu ko def politique politicienne li ñuy def nii pour suñu doom ëllëg la parce que ñun passé nañu parce que ñu ngi ñëw ci tey suñu doom ëllëg ak suñuy sët te loolu nag am na ay lu nga xam ni c' comme la crise casamançaise ya toi doit avoir un consensus fort te ma jàpp ni honorable soppeeku boo soppeekuwul ci yoon ñu ñu ñu jàngalee politique am na lu nga xam ni kenn du ko def débat politicien te bu ñu ko defee boo débat politicien am na loo xam ne aussi man ku ma xoos ma ko réeral loolu loolu loolu amul jafe-jafe ci loolu mais li ci am solo danañ ci ñëwaat xam Abbas Abbas nga may ma rek xam nga man bi ngay wax dama ne teg ma bëgg rek nga may ma man tamit nga ne teg loolu mooy démocratie bi. alors ci loolu ci wax nañ ci lu bari lu jëm ci logement yi ci logement yi itam nañu fàttali li président Macky Sall fekk fi président Macky Sall mu ngi fi fekk 5000 unités d'habitation par an boo boolee SICAP SNHLM ak promoteurs privés nationaux comme internationaux 5000 unités d'habitation mais 5000 unités d'habitation boo ko waxee ku nga xam ni ku mel ni man du xamuloon mbir mi lu bëri du xam lan la 5000 unités d'habitation du logement mooy logement yi ak terrain yi nga xam ni du logement unité d'habitation président loolu la fi fekk mu ne dama bëgg a jëlee 5000 par an ñu yóbbu ko 100000 logements léegi nekkatul unité d'habitation rek 100000 logements ci juróomi at mais loolu c'est un changement total de paradigme. de vision et de et loolu mu ne nañ koy defee mais du xëy rek ndar xewul sotti mbir mi dafa am fu mu jaar par exemple bi fi ñëwee ba bi ñu ñëw en 2012 fekk fi une loi sur l'habitat social mu ne nañ njëkk a commencé ci sart yi nañ def loi bu nga xam ne mooy gere habitat social fii ci assemblée nationale lañ ko voté mu ne buñ ñu ko defee même bu fekkee ni defar nañ ay kër te nit ñi mayuñ leen ay conditions yu ñëwee amee ay kër du mën a sotti te ñu bëri seen problème ci banque yi mooy garantie bi mu ne nañ créer un fonds pour l'habitat social yemu fa ñi ni ne ah, VRD yi ñooy problème mooy tali yi ñuy def yoon yi ñuy def pour mbirum ndox mi mbirum courant bi naka lay àggee même boo amee suuf si da am jafe-jafe président mu ne loolu itam musul am ci Afrique ñu ñooy premier en Afrique mu créé société bu nga xam ne mu teg mu tuddee ko aménage société d' aménagement et pour la rénovation urbaine mu ne première société loolu nag bu yembee ba pare président mu ne ñu àgg nañ léegi ci SNHLM ak SICAP ngeen joxaat leen seen doole loolu ci yoon ñu ngi ci yoon boobu gis ngeen li SICAP commencé def SICAP léegi yematul ci Ndakaaru HLM ñu wax ne bu mu yem Ndakaaru yematul ci Dakar parce que te nañ fi léegi kenn HLM sax motul mosul yem ci Ndakaaru foo dem ci Sénégal am na vesti HLM président mu ne nañ ko renouveler damay jox exemple rek ñu ngi wax Kaffrine lu bëree bëri mais li am Kaolack ci investissement suma ministère Kaolack la ëppee parce que cœur de ville Kaolack la urbanisme la ñun ñoo ko fa def parce que administration continuité la aji Margan Kanouté en arabe cœur de ville bu ñu coow foofu mais urbanisme la tey espace yu ndaw yu fa am ci ci ci ci rafetal urbanisme la te ci ci logement prévoir nañ leen foofu 300 logements yu nga xam ne commencé démarré nañ ko saa du yàgg ñu livré ko kon loolu bu amee ba pare. bu ñu liee loolu yëpp ñu lënk ko mu am société pour ñu am fonds pour l'habitat social am SAFRU am léegi guichet unique parce que nit ñi procédures yi dafa doon jafe président mu ne nañ def guichet unique guichet unique am na léegi dans toutes les capitales régionales ñu def ko fa bu ñu ko defee ba pare nag ñu accompagner le promoteur promoteur public sénégalais yi noonu nañ commencé ci ñoom def nañ prise de vingt huit convention vingt huit convention am sur vingt boo ci xayma huit rek ñoo ci xarañ ba dugg ci mbir mi carrément président mu ne baax na secteur privé national jox nañ ko wàllam mais comme que mbir mi dañoo bëgg mu accéléré wu il faut ñu ubbeeku ci àddina bi moo indi ñu am soo afri afriloge ñoo xam ne ñu ay comme ay malien ay malien ñoo ko yor ñu am ay Dubaï ñoo xam ne e ak sénégalais de l'habitat ñu xam ay anglais ñoo ko ñoo ko organisé te gis ngeen li ñu war a def ci nouvelle ville de Thiès muy Mbourkat mais ñooñu du ñu yem rek ci Mbourkat dinañ def ay logement dans tous les départements du Sénégal te loo foofu tamit lañ am tuuti jafe-jafe parce que dañu parfois pour que ñu am assiette foncière yi maire yi jox ñu ko fu ñu amul ñun suñu zone d' aménagement concerté fu ñu am suñu zone d' aménagement concerté foofu amul jafe-jafe mën naa jox après député yi liste yi nga xam ni département yi nga xam ne commencé nañu joxe te bu joxee bu ñu paree gaañ bu ñu commencé am na lu ñu commencé gis ngeen ko Thiès aménagement yi taxaw na bu ñu commencé logement yi dem danañ àgg dans tous minimum minimum dans chaque département nañ ko def au trois 300 logements dans chaque département te loolu nag loolu ci Senghor la gëj loolu ci Senghor la gëj kon nag foofu itam nañuy waxtaan rek li ci am beneen bi mooy les mooy mooy autorisation autorisation de construire autorisation de lotir foofu moom partagé naa ak yéen te maa ngi jox témoin aussi ci doyen Samba Sy cher collègue Samba ak ministre Moustapha Ba chaque jour président ne ma Ablaye lu ma jaaxal mooy autorisation yi lu tax muy yéex lu tax muy yéex moo taxoon président en 2014 nee nañ def système bu nga xam dañu koy digitaliser ñu tuddee ko Télédac Télédac bi nag boo tey am na ay jafe-jafe surtout ci région de Dakar nu mu amee jafe-jafe mooy d'abord accès à l'internet ensuite autorisation de lotir du ministre bi rek mooy ñëw joxe ko directement dafa am ay lu nga xam ne def ay préalable ñu nga xam ne dañuy joxe ñi joxe seen avis ñi joxe seen avis dana daanak dana mën juróom-ñaari société yu nga war na joxe seen avis ba pare ministre bi doo ko wax bu ci kenn ñëwul mënoo def autorisation kon foofu jafe-jafe am na fa mais jafe-jafe yooyu président nee na naa def communication ci ci ñaari semaines yi di ñëw ci conseil des ñu xool ministère bu nekk jafe-jafe fu mu amee ñu jëm koo faj mais aussi compétence dañu koy assumer xam nga ñun maire yëpp ñu ngi ñu ngi adossé wu sur le principe de la libre administration mais loolu dañ koy évoqué à chaque fois bu nekkee suñu avantage à chaque fois lu ñu war a bokk ak état bi ñu ne non état bi moo war a def lépp foofu itam dafa am partage maire yi ak ñun ñu waxtaan ba nga xam ne lii war a gaaw ñu def ko ci ay délai dem nañ ba ci taxi waxu leen ko mais d'une commune à une autre taxi yi dafay varier te ñu nekk même pays yooyu yëpp par exemple nañ ci jël ay jumtukaay te incha allah danañ ci jël ay jumtukaay ba nga xam ni citoyen dana mën a am autorisation de lotir ou de construire même mu def ko ci anam yu nga xam ne dafay dafay dafay dafay am réglementation bu leer alors euh, mbir mi tamit ñu ci mbirum cité religieuse xam nga foofu tamit war nañ sant bu baax Macky Sall président Macky Sall ndaxte cité religieuse fii lañ nekkoon vocation état du tabax ay religion parce que du tabax ay mosquée parce que dañu jàpp ni laïcité xam nga tubaab yi dañu nax ci mbirum laïcité dañuy foog ne laïcité mooy la négation de la religion laïcité ce n'est pas la négation de la religion c'est le respect de chacun dans son droit religieux et loolu Macky moo ko jëmmal mag président Macky Sall moo ko jëmmal bu mu ñëwee 2012 ci ay mosquées mu ne nañ defar ci suñu ministère mu dafa programme chargé de la modernisation des lieux religieux ci ministère de l'urbanisme ci état du ci présidence de la République mu am foofu aussi programme moo xam ne moom ci boppam mooy superviser yenn yenn yenn cité religieuse tey ci bis ni depuis 2012 ba tey cent 113 mosquées 113 mosquées defar nañ ko fi ci biir Sénégal mais sëñ Modou Bara suma waaye nga sëñ sëñ Cheikh Modou Bara Mbacké suma waaye nga xamante nañu bu baax waaye ndar xëyul sotti loolu laa lay fàttali munoo ma wax nii man maa la waxoon ne naa ñëw fa mosuma koo wax déedéet xam nga man dama nekk nitu kàddu te li may wax dañ koy enregistré fii mooy ci commission ak fii mosuma laa wax nii danaa fa ñëw ñëw état dafay am toujours lu ko représenté itam doo xaar ba assemblée bi tey nga may fàttali lu nga xam ne waroon nga ko dox tous les jours ngay député à l' assemblée nationale mais maa ngi lay dégg tous les jours ñu ngi dëggante tous les jours ñu ngi wax tous les jours mais fàttali ma ko sama fàttalee ñu xool lañ ci man te état tam fii yéenay voté fii yéenay voté suñu yéenay voté suñu budget yéenay voté suñu budget xam nga man man damay damay assumer mes relations man damay assumer mes relations man du ma du ma nëbbatu du ma laxatu moi je suis un républicain au sens près du terme ci opposition bi am naa fi ay xarit am naa fi ay am di jàmm yu wóor yu nga xam ci milieu sportif lañ ko bokk mais bu ñëwee fii bokkuñu dara ndaxte ndaxte man ku toppul Macky Sall toppante wuñ mun nañu am xarit xaritoo ñu rek waaye dëgg bu dëgg ñëwee ñu def ko moo tax ñu war a sàmm ñu war a sàmm ñu war a sàmm ñu war a sàmm li nga xam ni moo ñu boole li ñu boole nag li ñu boole li ñu boole li ñu boole mooy ñu sàmm ko li nga gis te ñu am ko ñu war cee sant xam nga wax naa sànq mbirum corniche bi Mais laissez le ministre continuer. Merci. Vous avez la parole. je suis au service de la République. Je suis au service de la République et personne, et personne ne me prendra à défaut sur ces questions. li des nag xam ngeen li ngeen bëgg lu ngeen bëgg du ngeen ko am li ngeen bëgg xam nga li ngeen bëgg du ngeen ko am parce que li ngeen bëgg ma bañ a wax dëgg yi xam ne moom laa indaale ngeen bëgg ñoo divertir mais ça ça ne passera pas il faut il faut il faut il faut ngeen nekk fair play il faut ngeen nekk fair play un gouvernement qui fait des réalisations aussi belles aussi gigantesques doivent être saluées par tous et c'est pourquoi je vous en félicite li des ni mooy mbirum équité territoriale équité territoriale ci Macky Sall la la soxee itam parce que ay régions yu bëri tey ay régions yu bëri tey bu ñu wax région de Sédhiou dans sa modernisation bu ñu wax région de Kédougou la région de Kaffrine parce que gars dañoo dañ maa dañ maa yab rek di wax Kaffrine mais ku gis Sédhiou gis ni Sédhiou c'est totalement transformé ku gis Kédougou barke démb gis Kédougou c'est totalement transformé transformation yooyu le moo jur li nga xam ni mooy mu ngi koy sukkandiku ci PSE ci lu nga xam ne ñu koy wax équité territoriale yooyu tamit maa ngi mën naa joxe exemple ci lu bëree bëri wax nañ fii ci mbirum cimetière ci cimetière yi naa ci ñëwaat parce que boobu c'était quand même un cas assez assez difficile cimetière u Pikine président jëloon na ci ay dispositions nee nañ ko yokk biñ koy yokk mu am aussi ba tey mu am jafe-jafe mu ñëwaat ñu nañ ko yokkaat yokkaat boobu la ñu ngi ciy waxtaan ak ministère de des finances mais aussi en relation avec le président du conseil départemental les, les élus, je voulais dire, mairie avec la ville de, de, de Pékin, pour que nous voyons ensemble comment prendre en charge cette question. Les questions d'aménagement en relation avec le ministre des Finances, nous les prendrons en charge. Parce que le président a donné une instruction ferme sur le cimetière de, sur de Pékin. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le président a une idée. Dans la nouvelle ville de Thiès, il faut que nous créions des cimetières nationaux. cimetière national musulman mais cimetière nationalement national catholique loolu itam c'est pour parce que les espaces commencent à devenir rares dans la région de Dakar et il nous faut nous ouvrir dans de nouveaux espaces ñu ñëw aussi ci effondrement yi effondrement yi wax nañ ci lu bare bare et def nañu xayma bi xayma bi buñ ko xaymaa loolu tam ci conseil de ministres la jógee président joxoon instruction ministre de l'intérieur ak ministre de l'urbanisme pour que ñu xalaat ci effondrement yi effondrement yi wax ngeen dëgg mooy lu ci bëri mooy bureau de contrôle yi waroon def ci liggéey bi en amont ñoo ko deful mais tey war nañu dépasser constat constatation bi rek ñu def constat ñu constaté bu ñu constaté ba pare dafa am procédure procédure bi nag du ministre de l'urbanisme mooy ñëw rek daane bâtiment bi dafa am procédure bu bu mu war a wéy ba ci démolition bi nga xam ne c'est le maire qui doit le faire mais bi ñu xaymaa ci Sénégal am na 1446 bâtiment yu mel noonu yu nga xam ni war nañ see jël jumtukaay ci jumtukaay bi njëkk mooy ñu créer IGB inspection général du bâtiment inspection générale du batiment bi président di ñëw deux agents trois moo fa nekkoon mu ne nañ renforcer agents yi ñu jaarale ko ci xëyu ndaw yi aujourd'hui presque am nañ plus de 90 personnes mis à la disposition de de l'IGB mu des ñu maintenant ñu renforcer leen sur le plan logistique président waxoon na nañu xool ak ministre des finances naka la ñuy def ba aussi IGB am ay oto mën a am contrôle en amont loolu itam buñ ci naxante c'est une responsabilité collective citoyens les élus et le gouvernement ñoo war a conjuguer leurs efforts bu ñu conjuguer suñu effort ñu ñëpp ñu war a mën a àgg ci dara et yaakaar naa ni loolu mën yu mu yu mu yu mu am ci ci ci Dakaaru ci Touba ak ak Kaolack particulièrement parce que Kaolack tamit foofu ràññee gis nañ fa ay bâtiment yu bëri depuis temps colonie yi nga xam ne menaçant ru la te ay nit dëkk fa danger yooyu ñun ñëpp ñu conjuguer suñu effort bu en tout cas loolu mooy instruction bu président de la République alors sur la diaspora euh, d'abord euh, la présidente Sonaba aussi a posé la question sur les conditions d'accès conditions d'accès au logement au au programme 100 000 yooyu wax nañ ko waxaat ko ci lu bëri bëri benn bi dafa am plateforme bu ñu ubbi plateforme boobu dañ ci inscrire boo ci inscrire am na benn profilage bu nga xam ne fonds pour l'habitat social moo ko def ak benn commission ñi ñu tànn ci ñooñu la ñuy attribuer ñoom la ñuy moom mu am ay critères premier critère dañoo ne il faut nga nekk sénégal deuxième critère il faut nga am revenu bu nga xam ni ab matul 450 000 francs CFA képp ku amul am salaire ou bien li nga xam ne sa payoor matul 450 000 francs mën nga ca bokk nga am activité parce que boo amul activité doo mën a fay nga nga am nga nekk aussi amoo kër feneen boo amee kër feneen nga bàyyi ñi nga xam ne amuñu kër mais aussi bu fekkee ni nekk nga ci coopérative coopérative te mën na la jàppale may wax ne aussi ci diaspora président nee na ñu leen jox 20 pour cent 20 pour cent projet bu ci nekk bu créé 1000 20 pour cent yi nañ ko jox diaspora diaspora itam mu am les mêmes critères ci gis ngeen ci ci mois de mois de juillet ci avec sage ci ci Bambilor 297 logements yoo xam ni commencé woon nañu meññ pour pour la diaspora mais maa ngi maa ngi gërëm député yu nga xam ne ñu jógee diaspora ci conseil ñu jox président président yi tamit waxoon nañu nañ def mission ñu def ko en relation avec le ministre des affaires étrangères pour que ñu dem ci diaspora bi partout expliquer leen mais aussi won leen yoon wu ñu jaar ba ñu yombal affaire te ñu ñu certains promoteurs véreux maa ngi gërëm bu baax itam député yi bëgg naa ñu jàppale ma ci bëgg naa ñu jàppale ma ci di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax rek ci pulaar tuuti bandiraɓe halpulaar ko kalɗon eko faati e caggal leydi pour affaire ko ganduɗa ko to yimɓe koɗi président makky sall won jumtukaji kewɗi e o ƴefti hen o wi ko kala to waɗa temedere yo galleji nogas ɗi yo dokke ɓe ganduɗa nana caggal leydi ene goni sénégalais ene ene kaɓe ene ɗum noon ko heen gonɗen ko puɗɗen ko noon ma en continue ɗum no continuirten e maɓɓe min kaalda e maɓɓe kala ko foti waɗede hen ɓe nganndine soɓe nganndinama laawol ɓe mbawa ƴeftude laawol ngol ɗon ngannduɗa kañum waɗa pour sénégalais wonɓe ɗo le président j'ai été particulièrement remercier tous les députés pour l'accueil chaleureux mais aussi pour le soutien que, que nous avons eu à l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre, de votre attention.